lan lañ dooree béykatu ndengaleer yi tey ndóol parce que kii dafa bëgg a béy ñii dañ doon béy depuis des années voire des siècles kon bu ñu joxee keneen pour mu béy maanaam la même activité ki keneen ki doon def mais wutuñu leneen lu dul neewal doole koo xamante ne dafa ndóol gën a dooleel koo xamante ne alal rek la am y a pas explication loolu moo am mieux boo jëlee deux millions deux cent cinquante mille mètres carrés jox ko kenn nit benn sénégalais boo xamante ne macha allah am na alal ba pare boo évaluer le mètre carré à mille francs kese te dans la zone ëpp na ko day mel ni état dafa jël sédiment jox ko deux milliards deux cent cinquante millions démb dégg naa ci benn émission télé ñuy wax ne. faut faille un forage de 254 mètres cubes. Forage butinec, 150 millions la investir. Mais 2 milliards 225 millions yoy nga xamantene mom évaluer le mètre carré à 1000 francs 15 forages là parce que la seule différence entre aujourd'hui Baba Ngam et les populations de Nengler, moy amna moyen yu mu gassé forage pour am ndokh ni di xaar yalla taw pour am la responsabilité kan la pourquoi état jël 2 milliards 250 millions bu le mètre carré dans la zone à 1000 francs jox ko une entreprise te mënul jël les 2 milliards 250 millions investir dans le forage pour que ont fait nga xamantene dañuy xaar dañuy xaar nawet ñu parce que kuy xaar dafa am béykat yi lan la ñuy xaaree nawet ndox parce que mënuñ tawal seen bopp mënuñu bënal seen bopp forage kon état responsabilité c'est pas de déshabiller des pauvres paysans pour habiller des riches qui veulent se lancer dans l'agro-business..! y compris nag tegguloo ci seen loxo dara ñiy wax compromis Ni ni yépp amna na ñoo xamante bu ku ci dem dëkk ba sa tool nga fa wala sa toolu bay ku laaj ci ñun papier bu tax Babacar nga mën a wax tey man maa moom suuf état du la ko jox amul kenn koo xamante ne yaa ngi ci dëkku àll mën a demander tey titre foncier bu ñu jox la ko lu tax parce que dañoo ndóol pourtant bu ñu leen joxee titre foncier ci seen suuf soosu dinañ ko valoriser dem yóbbu ko banque mën ci am xaalis ñu mën leen defal ay prêt ñu fay mais nanguwu ñu defal béykat yi ay titre foncé ñu ne ñu ñu nangoo defal bay titre foncier mooy ñu mel ni Babacar Ngom ñi nga xamante ne am nañu xaalis bu bare dafa doy pour que rongañu baadoo la continuer di siim cere buur wala cere koo xamante ne am na xaalis am na daraja ba pare c'est fini tout ça parce que doomu béykat yi dootuñu seetaanati ñu di leen foqati seen suuf di ko jox kenn koo xamante dafa amalal alal ba pare c'est fini loolu dootul amati bu état bëggee solution na te accepter titrer les terres des paysans ku nekk mu jox la sa titre foncier ci suuf boo jaayee yaa xam boo demee yóbbu ko garantie banque ci prêt yaa xam bu fekkee ne da koy andi apport dans le cadre d'un projet d'agrobusiness yaa xam parce que ñi bëgg a béy yépp bu ñu amee alal tamit am na loo xamante ne mënuñu ko defar mënuñu ko def mënuñu ko mënuñu ko mënuñu ko dem uti ji feneen andi ko mooy suuf si fii la nekk. ñi ko moom ku bëgg a béy tey suuf ngay ut mënuloo béy ci ndox mënuloo béy ci ngelaw kon ñi moom suuf si ñoom ñoo yore laa valeur ou la ressource principale ku ko soxla nag ne béy nga bëgg a jëme war nga yéene ñooñu nga xamante ne bi suuf si nekkee àll kenn mënu fa béy seen maam yi ñoo jëloon semmiñ di gor garab par garab garab par garab ba mu nekk àll bu mu nekk tey nit ñi mën faa dem gis ko mën faa béy tey ça il faut que mu am valeur boo xamante ne pouvoir public yi dañ ko ko reconnaître te bañ di continuer doore baykat yi sen sen sen ndóol c'est la seule solution qui vaille nañ delloo souf si baykat yi te bañ di len jaay doole di gas ay tranchées yo xamantene ay fausse commune lay la may nuróol ay charnier lay nurul xéfal paysan yi joxuñu len deureum jël sen jël seen suuf si nga xamante ne rek lañ yaakaar on parle de d'employabilité lu mu fa jot a def femmes yi fa nek di di witt ci tool ga journal par euh, euh, mu di len fay journalier ku fa ku fa witt station ba mu fess do xam lan mo ci bax wala lan mo ci baxul duñ ko calculer non dañ koy natat xol li ci bax li ci baxul même bok ko duñ la ko fay ñuy wàcc ak ay 1000 francs yi 2000 francs après mom mu ne bëggul transformer borom tool yi en ouvrier agricole mais c'est faux c'est absolument faux loolu lay out il veut les transformer en ouvrier agricole

maternité bi tubaab moko moko moo boutique bu fa nekkoon en face salle bi ñu conférence de presse bi tubaab moko ko tabax def fa 000 francs de marchandise mo tabax maternelle bi mo len defal ay moulin à mil pourtant tubaab bobu jëlalul waa Ndingler un seul centimètre carré pourquoi kenn nekk fi fort de son titre de son pouvoir et de sa richesse bëgg taxaw ne non dañ may jox suuf parce que dama bëgg def agro business que paysans yi seen culture rudimentaire mënatul nekk un moyen de subsistance bu mën a permettre ñu ñu def autosuffisance alimentaire état bu bëggoon day bën ay forage encadre paysans yi exploitation agricole familiale jaare ci exploitation agricole familiale organiser leen en coopérative bu ko defoon kon naataa ngi am Sénégal te kon béykat yi ñu bàyyi leen seen suuf ñu exploité ko seen njaboot mën a dund ngeen baal ma ci ci ci guddal bi